السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عين الحق التي تتجلى منها ورسل الحقائق عين معارف الأقوام صراطك تام الأسقم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki téléspectateur yu Light TV télé bu mag bi nga xamante ni mooy lumière te lumière ku ko wax rek wax leeral lumière ku ko wax wax ñiit lumière ku ko wax wax xam fi ngay teg sa tànk moo waral ñun seen mbokk Ibrahima Mbuub ànd ak monsieur Aliou Diop mi nga xamante ni mooy caméraman bi waaye di nuyu Germain Diama Mendy mi nga xamante ni mu ngi jàppale tamit ci liggéey bi biir ak biti ñu ñëw tey ji doxantu ba Maris Maris ci ku ko wax sa xel dem ci Cité des Lions Cité des Lions muy suñuy mbokki patriote yooyu nga xam ni ñoo demoon ci seen sol seen mbubu réew dem bitim réew jël fa ngañaay lu mag ñëw ba président teral leen tabaarakallaahu jox leen ay cité ñu tuddee ko cité des lions muy basketteurs yooyu nga xamante ni kenn si ñoom lañ ñëw këram waaye bi nu ñëwee ki ñu tax a ñëw mooy boroom këram borom këram muy Cheikh Omar fay Cheikh Omar fay di kilifa diine di ko xam ni keroog ba ma ko gisee laa ne ko jeex na yow daal sëriñ bi làqatu bi daal laa bëgg mu dañ dinaa la wone ba Sénégal yëpp xam ni am na kilifa gu yàlla samp si ndakaaru mu fi bay waaram si diine lislaam waaye di xamal jàmm yàlla kan mooy suñu borom subhaanahu wa kooku lañu fekk si tey muy Cheikh Omar Faye ñu ngi fi fekk soxnaam su tedd muy ajaratu aadama Jaxate ajaratu aadama nga xam ni ren gii la jóge baytulaahil xaram tabarakallahu du ñàkk si catal émission bi dinañu ko léemul ñaanal ñu ndax kat yonent bi ne woon na képp ko jóge sama jumaa ji ñeent fukki guddi loo ñaan yàlla def ko alaaji ma si lakkan kan ni waxuma la ñeent fukki guddi waaye sa aj bu nangoo li des sa giiru dund boo ñaanee yàlla def ko kon daal soxna Adama ñu ngi lay eh, ziar bu baax di ñaan yàlla nga ràppal kaala gi mbokk yi ñu bëgg a jox ki nga xam ni mooy Seydina Omar Seydina Omar ñaŋ ndax nee nañ loo xam-xam ma demb ma demb a gën la xam boppam bi ñu laajee sëriñ bi nag ni ko présenté wul mu ne saabu du fóot boppam man duma leen wax maay joxal leen ma sama wëllëri bii di Omar Niang nga xam ni moom fekkee na lépp donte lépp nu ñu ko résumé ci émission bi waaye dinañ jox Omar Niang mu wax ñu kan mooy Seydina Omar est que Cheikh Omar Faye mi nga xam ne moom la ñu fekk ci kéemtalaay juróomi minute rek ak li nga xam ne mag ñi dee nañ ko ak wax ci kanamam mu dégg ñu xam ni mbokk yi tey jii ki ñu fekk ci jar naa fekk ci ki ñu fekk ci jar naa laaj ay baat muy tontu. waaye jar na seetaan mbokki téléspectateur bu kenn doxal sa seetaan ñu jox Seydina Omar Niang mu wax ñu kan mooy Cheikh Omar Faye bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mi Ibrahima maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant waaye di jiitu loolu di nuyu suñu wasili bi di suñu kilifa mm-hmm. ëpp na wax sax ni Cheikh Omar Faye xam naa ni moom ngeen koy wooye waaye tur bi du loolu mm-hmm. Cheikh Umar ibnu Ahmedu la mm-hmm. ndax lu tax ñu koy wax Cheikh Umar ibnu Ahmedu mm-hmm. doomu yenant bi la ci leer ci la ci leer pour nga mën ko mën a dégg mm-hmm. du si bëri nag moom moom lañ koy wooye di ko wax Cheikh Umar Faye waaye tur di Cheikh Umar Faye mais Cheikh Umar ibnu Ahmed la ngir leer bi nga xam ni moom moo bàyyeekoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ci moom ñu tuddee ko doomu leeru yonent bi sallallahu alayhi wa li may wax ci moom fa tabaarakàlla macha allah du bare. Mhm. damay xaw tënk na xëy na waxtu bi mayewu ko. Mhm. te li ñu ci mën a wax lu nekk rek dafay fekk nii dafa am fu ñu ko tànqee. Mhm. ndax nit ku nekk looy wax lu nekk day fekk ni fa nga ko tànqee wóor na te lu wóor la tam fu ñu ko tànqee. ndax ku ñu ñëw ci moom. fa tabaarakàlla macha allah bu mu xamal ñu jëmm ji nga xam ni mooy Cheikh Oumar Ibn Ahmed. mooy góor gi Ibrahima Der. góor gi Ibrahima Der ñu gën ko xamee imam bi nga xam ne moo nekkoon R100. r mm-hmm. la. waaw benn quartier la bu nekk Thiès mm-hmm. exactement. Mm-hmm. et xamante bu mu xamante góor gi mi ngi tàmbalee ci benn disciple sang bi bu ñuy wax Abbas Diouf. góor gi Abbas Diouf. bëkku néegu euh, grand sëriñ de Dakar la woon Basirou Diagne. fa tabarakalla bu mu xamante góor gi. bés dafa dikk ci moom mbir mi yéem ko lool. Mm-hmm. mais comme que góor gi Ibrahima Der dafa doonoon sëriñu tam Babacar Diagne. Mm-hmm. bés ñëw yàlla def ci kàttanam daal mu won fotoom. Mm-hmm. góor gi Ibrahima Der. ñu ngi ànd ak baaxoñ bi. bu ma ko gisee góor gi dafa xool foto bi ni ko jëmma ji est-ce que xam nga ko mu ne ko xam naa ko mu ne ko bu doon sama sago de bëgg naa daj ak moom. ah Abbas ni ko de loolu dinaa ko xool incha allah dangay bàyyi bu ma gis ak sang bi daal bu mu ci waxtaanee lu ma ci mën a wax daal dinaa la ko wax fa tabaarakàllaa bu ma ñëwee gisante ak moom waxtaan ak moom góor gi ni ko alhamdulilah nekkoon na yegg si e, bi ci cere bu ñu koy jëli man mi la yebal ni ma jëli ji ko. Mm-hmm. ma jëli ji góor gi mu ñëw bu mu ñëwee mu ngi ñu fekk rue 33 angle 26 Médina foofu la ñëw tabaarakàllaa toog ak njaboot bi wax lu yéem bi. ndax euh, kenn mënul wax lépp mhm. waaye bu muy tàmbalee ñun mi ngi tàmbalee ñun si bu ma amee ñaari at ba bu muy am fanweeri at ak ñeent boobu sàng baa ngi ci fanweeri at ak ñeent mhm. tàmbalee ñu si ñaari at yi lakka ca fekk ci juróom ñaari at yi la ko ca fekk ci fukk ak ñeent yi la ko ca fekk ci ñaar fukk ak ñaar ba jàpp ñaar fukk ak ñett yi la ca fekk mhm. ba ci fanweeri at ak ñeentam yi bu nekk ci ñoom bu ma ko waxee itam góor gi dëggal lool ni que li nga wax dara dañu si te bu ma koy wax boobu tam grand frère am mi nga fa woon mhm. ndax bu fekkoon am na leneen la ci lënt moom xëy na dina wax mhm. mais seede bu nekk rek seddal na ko ci kanamam mhm. ba mu leer que moom lii mu wax daf ko xam waaye la ñuy góor gi Ibrahima Deer wax dafa ni ñeent fukki atu yàlla ñoo ngi topp leer bi ñeent fukki atu yàlla 40 ans 40 ans ba leen ko Serigne Babacar waxee ni leen ah leer bi day jog na donte ni poppa ngeen la dal nag dem leen fa xam ni foofu la mu xaw ñu ci cax sax ni xëy na sax chrétiens yi la tax ñu jiitu fa. Hmm. loolu li ñu gis. Hmm. ndax diine l'islam fa leer nekk en général ñoom ñoo koy njëkk a gis ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam làbbe yee ko feeñal. donc ñoom itam bu ñu ñëwee popp ngeen gis fa lañ fa gis aussi itam dañuy ñëw rek toog ni ñoom la fa tabaarakàlla ñu xam tam la ñu fa xam. e mu seetlu ni ñeent yi at ñoo ngi topp leer bi waxee mandarga yi nga xam ne Serigne Babacar waxoon na leen ko ca jamono yooyu ni bu ñëwee mandarga yooyu dana nekk ci moom. Hmm. mu xamal ñu carag bi nga xamee ne moom la ko Abbas Diouf wan photo bi ak baaxoñ bi mhm. ci la gis ci moom lu muy gis ci moom xam ne jëmm ju doon wut di jëmm ji la mu ñëw wax ci moom lu muy wax ndax am na lu bari li nga xam ne kenn mënees ko wax ci télé ndax dafa ëpp dëgg la ndax man mii sax nga xam ni man maa nekkoon digganteem ak sanga bi eh, danañuy egg ci ay moment yi nga xam ne daf may wax ni sax lii su ma la ko waxee yow di nga weddi di nga ma weddi weddi sa sanga weddi yonent bi weddi yàlla te ku def loolu moom nitu safara nga waaye dafa fekkoon ni tam aussi dama xawoon féetee ndaw ca loolu mm-hmm. moo tax sama xel mënul wan egg ci lu mu waroon waxanteeg man xëy na léegi laa dabu ba xam lu mu ma bëggoon wax exactement mais mu leeral ñu daal xamal ñu ni jëmm ji toog nii leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom la ñëpp doon xaar dafa fekk ni nag du neex ci jamono boobu ñu toll nit ñi mën a nangu lu nu mel mm-hmm. jamono lëndëm na lëndëm bi nga xam ni lii nga xam ni tey moo fi nekk tey du ñu mën a gaaw a nangu leer bi nga xam ni moom moo fi nekk waaye lu am ba am rek mooy lu leen Serigne Babacar waxoon gis nañ ko ci jëmm mu ni nag moom du fa yem mhm. ndax du wax rek lii daf ko seedal jëmale ko ci taalibeem yu nekk ak moom mu ni leen bu doon sama sago de bu fekkoon ne yàlla mën na ma delloowaat ma doonoon gone ni yéen mhm. dina ma jaral guddi bis bu yàlla sàkk may gàddu sama pot di yalwaan li ma am mi jox mu teg si mu ni nag mission bii yàlla jox ko du mission bi nga xam ni ma demba wala ma sàmba dana ci dugal loxo moom kott la ak yàlla kenn bokku ci lu mu ciy dox moom kott la ak yàlla hmm. la ci jàmman mooy alal ba nga ciy dugal ak wax ju rafet ji nga xam ni moom nga ci man mu ni moom de bu doon moom bu fi nekkoon hmm. guddeeg bëccëg dina yalwaan lu mu indi mu jox mu jox moom góor gi Ibrahima Der hmm. moo ñu wax la kooku sas la ba mu sas taalibe yi nga xam ne ñoo fa toogoon ngir ñu mën a dégg moom fu mu bëgg a mu ni yemul nag comme ñoom dañ leen waxoon ni lii bu mas bu masaan feeñ wala bu ñu ko gisee nañu fexe ba wërngal ko mm-hmm. mu invité góor gi mu war ñëw Thiès xam nga cees moom c'est la ville des du milieu religieux mm-hmm. bu ñuy wax cees Touba fa la nekk mm-hmm. Tivaouane fa la nekk ñu am fa daje bu mag fa tabarakallah macha allah góor yëpp a toog imaam yëpp a toog muxaddam yëpp a toog mu seedal leen ci seen kanam ci la nga xam ne moom la Serigne Babacar waxoon ca yooyu jamono. Mhm. ci jëmm ji nga xam ne ñoo ko doon sàkku di ko wut ci jamono yàlla indi ko mu jógee Popenguine te muy doomu séeréer bi sant bi amul ci solo. Mhm. waaye la nekk ci moom moo am solo. jëmm bi tam aussi te amoo ci solo waaye la ñu yónni ci jëmm bi loolu moo am solo. Mhm. loolu yëpp aussi dafa tabaarakàllaa mu leeral ko ni fa yonent bi tegoon tànkam moom foofu lay jël tànkam tegaat ko fa. ku ànd ak moom xayrun ku ñàkk ànd ak moom aussi tam xayrun du tere fu mu bëgg a yegg dana fa yegg ci kàttanu yàlla te Thiès la ko waxee mm-hmm. ñëpp ngiy toog mm-hmm. mu ni waaye loolu doyul il faut que mu delluwaat ba Popenguine ba nga xam ni fa lay waajuram yi nekk nga xam ni foofu fa tabaarakàlla ñëpp waa taaliba tijaan lañu mm-hmm. séeréer bi foofu ñëpp tijaan lañu waa ay tijaan lañu ñoom ñëpp fa tabaarakàlla moom côté waajuram yi ay xaadir lañu mais Popenguine sa globalité tijaan yi ñoo fa ëpp mu demaat ba foofu waxaat leen li nga xam ne moom la sedd woon biir Thiès papam ñaa ngi toog nijaayam ñaa ngi toog mu wax leen li nga xam ne moom la leen sëriñ Babacar waxoon ci jëmm ji nga xam ni takkandeeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu mbokki téléspectateur yu Light TV dégg ngeen loolu nga xamante ni Omar ñaa wax na ko si Cheikh Cheikh Cheikh Omar ibnu Ahmad tabarakallah comme ni ko waxee kon daal ñun dootuñu waxati Cheikh Omar Faye nañu wax Cheikh Omar ibnu Ahmad ndax tabarakallahu sile bi nga xam ni Omar ñaa wax na ko silsile bi nga xam ne mu ngi jëm ba si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye rawatina góor gi Ibrahima Deer mi nga xam ne taxaw na dégg R100 wax ko fa nga xam ni ab imaam du waxantu mu dem ba ni su ma delluwaatoo nekk ndaw dinaa jël sama pot du yalwaan di indil cheikh bi nga xam ne moom lañ fekk si ndeysaan li lay wan ni wat sa watit ba xam nga mag ma nee na la sa maam setu koy jël loolu nag da ko donne sirna Muhammad bi soxna Xadija dalalee Seydina Muhammad mu ñëw ak raglu lool soxna Xadija bu dinee musóor bi ni ko ba xam yaa ngi gis li ngay gis mu ni ko déedéet bu tegaatee musóor bi loolu ñëwaat mu xam ni malaaka la si la dem si góor guñ naan warqata ibnu nawfal warqata ni ko yaa layta ni kuntu fi xaasaali man jazaan wa kuntu xayyan la dal iraadi lil idami si la wax ni ay suma nekkaatoon ndaw dinaa jël sama lépp ñëw topp waa ji nga xamante ni moom ngeen ay indi ay mbiram si man loolu nag mooy wat sa watit ba loolu la si góor gi Ibrahima Der waxoon ci kii nga xam ne moom lañ fekk si tey macha allah moom lañ bëgg a jox kàddu gi moom it mu nuyu mbokk te spectateurs yi ñu waxtaan ak moom ay question sànq rek bi Omar ñaa di wax maa ngi naan lii daal première partie lay doon tey ndax lii du mën a bu xam naa ne li ñu bëgg a wax ak sëriñ bi yëpp du xaj si benn émission kon daal euh, Aliou jo boo koy monté na nga def première partie te xam ni deuxième partie bi du yàgg dara ñu ñëwaat fii si sëriñ bi laajaat ko ay yeneen i mbir mu leeral ko mbokk te yi sëriñ Omar euh, bismillah si daje ak yow. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu alihi wa ashabihi wa akrami ila yawmi diin euh, sëñ Ibrahim mm-hmm. alxalil mm-hmm. euh, da nga ma may rek Euh, ma jaale mhm. euh, su ma wóllëre mhm. bu ñuy wax euh, Maodo Faye mhm. Maodo Faye dafa bokk ci ñi yàlla boole ci sumay mbir te sumay mbir yëpp yëpp yëpp yàlla daf ko tënk ci diine islam mu nekk koo xam ne tam moo jëkk couvrir suma conférence islamique bi ma defoon defal ko étudiant université Cheikh Anta mm-hmm. en mille neuf cent quatre vingt dix neuf. Mm-hmm. ci jamono yi fi Cheikhu Charifu ñëwee. Mm-hmm. moom moo damoo ñëw euh, couvrir euh, waxtaanu diine boobule. Euh, ma di ko ci ndokkeel di ko xamal ne colère boobu. donte keroog lañu mu mujj gise moo nekk ci man ba léegi ndax moo do yàlla dafa def na ma ko bëgg bëgg naa ko ngir turandoom mhm. ma bëgg ko mhm. ngir lii doomu turandoom nekk suma wasila mhm. kon bu amee ñaar ci doomu Sëñ Babacar ñu génn àdduna ci lu matul at jot na nag ma teg ci loxo Maodo. Mhm. fay. Mhm. di suma dombaay mhm. suma njaal ak njaalu saafeen yépp mu tegal moo ko ci loxo xalifa bi ak jaale ko moom xalifa bi jigéenam soxna Fat Si Mansour mu defal ma ko te xam naa ne Maodo bu ko déggee mhm. dana ko yóbbu ba ci xalifa bi incha allah te dina ko def mhm. di ko ñaan yàlla yàggal tam taxawaayam li mu namm ci njobootu Seydi Malick bi ko yàlla booleel mhm. lu mu ci namm yëpp yal na ko yàlla defal lu ko raw waaw yal na ko yàlla jërëjëf Seydina Omar Faye tabarakallahu ibnu ah, ahmad comme ni ko Seydina Omar Niang waxee jërëjëf si njaal yooyu nga xam ni def nga ko jëmale ko si Maodo Faye waaye jëmale ko si mboolem communauté umma islamique bi yëpp yal ko yàlla nangu bu defee sëriñ bi ñu bëggoon waxtaan ak yow si mbirum diine l'islam comme niñ la xamee ñëw nañ fi keroog bi soxna si jógee màkka mhm. lu mu gàtt gàtt gàtt tabarakallahu waxtaanal nga ñu si alquran Mm-hmm. yëkkatil ñu fi ay aay yu ama am solo yoo xam ni ba léegi ñu ngi koy tàqamti ko mm-hmm. sëriñ bi ñu gis ni léegi réew mi dafa rëb lool lool lool donc mm-hmm. donte tarixa yaa ngi fi di fi mag ñi liggéey ñu ngi fi waaye est-ce que ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi topp bi ñu war a topp mag ñi jaar ci seen tànk li nga xam ne ñoom la ñu digaloon ñu def ko est-ce que loolu sëriñ bi yaa ngi koy gis ak nan lañu war a toppee kilifa diine waaw foofu euh, responsabilité bi am ci diggante sëriñ si ak seeni i njoboot maanaam taalibe yi euh, responsabilité bu ñuy partagé la mm-hmm. comme sëriñ bi mooy kilifa bi mm-hmm. moom la diine di waxal mm-hmm. moom la yàlla di laaj kon bu fekkee ne gett gi ku yàlla sàmmaloo am na rëq-rëq mm-hmm. duñ ko laaj bàyyi ma yi mm-hmm. waaye sàmm ba lañ koy laaj ba tax na ñoom kilifa diine yiñ fiy nekkandi mm-hmm. dafa am lu bëri bëri bëri loo xam ne dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi daw wut si àdduna loolu ñu daw wut si àdduna nag moo wàññi seeni kàttan ci seeni njoboot ndax njaboot boo ko wonee ni maa la gën a bëgg àdduna maa la gën a bëgg xaalis maa la gën a bëgg lekk bu neex te yàlla rekk a tax mu lay topp bu yàggee buy gëstu di ubbi kaamil bii nga xam ne yàlla tëjalu ko kenn dana mun a gis ne kat suma jikko sëriñ méngoowul ak li yàlla di wax ci gaayu baax yi Mhm. moo tax dañuy ñaan kilifa diine yi ñu dellu si seeni xel xam ni états tey yi ay néegu ñax jur mhm. néegu ñax ñooñu li leen jur juruñu leen ci gànjar ci barke lañ leen jure mhm. waaw kon nañu dellu ci kaamil bi nga xam ne moom lay digal nit ñi ñu koy jàng muy kaamil bu xonq bi mhm. kaamil bu xonq bi moom la ñu suñu ñoom maam yore woon ñoom El Hadji moom lañu ñu yoroon mhm. euh, ba jamono ñëw ay kaamil yu weex ñëw mhm. kaamil yu weex yi nag ci li ñu yàlla baaxee gis nañu matul indiwul alxuraan yëpp indi na arab bu neex nag waaye indiwul araf yi indiwul tombe yi indul tam maas yi nga xam ne mhm. mooy siru alxuraan bu ko defee da nga ko jàng ne jàng naa saar mhm. fekk na saar ba am na luñ ca rocc da ne jàng nga saar bi te tumb yooyu ngay gis tupp tupp yu ngay xeeb mhm, buñ la nee siin su tooy mille la tuppa tuppa yaa tax ndax siin boo amul ñetti tuppa tuppa yooyu siin boobu trois lay doon kon ñetti tuppa tuppa bu yóbboo trois ba ci mille <laughs> nga xam ni mas bi tam ci la ñu delluwaat ci ñoom aussi ni ñuy jàngi alquran di ko roy ci arab yi di dama baat yi di ko neexal mm-hmm. fekk na yaa ngi koy naqaral parce que alxuraan li ca neex mooy nga waxee ko ni ko yàlla wàcce nga waxee ko ni ñu xam tam ni alxuraan ni muy toll yëpp bismillaahi rahmaani rahim mooy sangu alxuraan ni mu nekk sangu alxuraan noonu la nekkee nag sangu lépp lu ñuy def ñun jullit yi Mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim moo ci war a jiitu bu ñu jogee foofu ñu xamal tam mm-hmm. sëriñ si ni Seydi mm-hmm. Malick li mu am ci yàlla ci yonent bi la ko jële ci yonent bi la ko jële Maodo radiyallahu anhu royul yonente bi day yem ci mhm. du njàngam bu réy bi moo ko may li mu woy ci yonente bi dafa am lu mu bokk ak yonente bi mhm. ndax li moo doon nettali ci yonente bi ku fekkewul mënu ko nettali waaye nag dafay fekk mhm. wolof dafay wax ay baat yu jóge ci baatu arab te du ko sàmm xam nga moodo ci xalpulaar mooy góor gi góor gi kuñ koy wooye ku mag moo naa dëgg màggul tu ko dëgg la de waaye Maodo boobu ngay xeet mm-hmm. mooy cheikh ci arab. Mm-hmm. vieux ci tubaab. Mm-hmm. moom la arab di wax cheikh. loo indi cheikh ba ñu ko tuddee ku màgg ku màgget. xam ba mu xam la nga xam ne ay maamam xamuñu ko. xam-xam boobu mooy màggaay bi indi baatu cheikh bi hmm. ñu koy tuddee góor gi ndax ku la mag moo lay nettali loo fekkiwul kon ñu ngay wax cheikh ca baatu Haalpulaar hmm. nee naa diini islam duma ci far duma ci parparloo hmm. sëriñ jàngaluma tarbiyu ma benn sëriñ nag te bu ma ko seddalul yàlla ba ma fekk ko dina ma ne lu tax waxoo dëgg ji waaye nag am naa kilifa mm-hmm. alaaji Ibrahima Deer biñ la xale bi doon wax sànq mm-hmm. mooy suma wasila adduna mm-hmm. ak alaaxira